wasalaatu wasalaam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam ixwatal iman assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu tur boroom noo ngi ñaanal sunu yenentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa yàlla na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk jullit yi noo ngi ñaan sunu borom jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu borom màgg gi ni mu nu nu fanaan ci jaamu yeewu ci jàmm yal na nu yàlla yendale noonu ci jàmmam nuy ànd ak yéen ci dars fajar yi ñu toll ci sunu dars al amalu lid diin masuuliya lil jami liggéeyal ci ñëpp mbokk jullit yi ñu ci ànd ak yéen tey waxu basri rahimahullah ji mu wax ne li kulli ummatin wathan yacbuduunahu al imaamu xasanul basri yal na ay waame yërmande ci kawam dafa wax wax ju rëy pour jubanti xeet wi pour bàyyi loo leen xel pour ñu góor góor lu def yitte ci jaamu yàlla bañ a jaamu lenn lu dul yàlla moom imaam bu mag bi mu ne li kulli ummatin wasan yaabudunahu xeet woo gis am nañu xërëm bu ñuy jaamu xeet woo gis rek am nañu xërëm am nañu jaamu ndox am na ñu jaamu biddéew am nañu jaamu garab am nañu ñu jaamu rabu àll am nañu ñu jaamu mbindéef am nañu jaamu xeer am nañu jaamu ëkk am nañu ñu jaamu jinni am nañu jaamu almalaika waaye mu ne wasanamu sanamu hadihi l umma allah nee na xërëmu wii di xeetu sayduna muhammad di xeetu lislaam nee na ñii seen xërëm bi ñuy jaamu mooy diinaar ak dërëm mooy xaalis allahu akbar xoolal sëriñ bu màgg bi ba muy wax ne xeet wu nekk am na xërëm bu ñuy jaamu ak léegi di joxe misaal daan xeetu sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne wa sanamu hadihi l umma ad dinar wa dirham ba mu koy wax kenn xamul woon ban siècle la tey ñu teg ci bët am doomu aadama yoo xam ne alal la ñuy jaamu dërëm la ñuy jaamu am am la ñuy jaamu waaye foofu ñooñu di jaamoo loolu di jaamoo am am di jaamoo dërëm di jaamu seen alal di jaamu am amu àdduna am na fa ay nit ñu baax nekki góor ak jigéen ñoo xamante ne ñoom jox nañ yàlla seen bopp geestuwaatuñu ndax yàlla rek subhaanahu wa moo leen ñor yàlla rek tabaraka wa taala moo leen yitteel moo tax yal na leen sunu borom subhaanahu wa fay mbokk yi ci yàlla liggéey bi ñëwoon na ba fi ñu koy kuulee teg dal bi doon xalaat a ah, fan la ñuy jëlee lu ko raax fan la ñuy jëlee bunt yi fan lañuy ñuy jëlee peintre fan la ñuy jëlee karo sunu borom subhaanahu wa taala daal di tàggat benn jigéen boo xam ne alalam ci lislaam rek la koy def guddi ak bëccëg ba ñuy waaj jënd terrain bii nga xam ne tey moom la ñu tabax ndaw si yal na ko yàlla fay dugaloon na ci ay takkaayam la jël chaîne jaaro nopp jaaro baaraam lamu loxo takkaay daal ci gàttal moom la jël daan ne jaay leen ko ngeen dugal ko ci liggéeyu yàlla bi tey fii nu toll nga xam ne dañoo naroon arrêté chantier bi soxna si dugal na ci six millions cinq cent cinquante mille koy ñaanal sunu borom. borom màgg gi borom kun fa yakun mu barkeelal ko am amam ak njabootam yàlla sàmm ko bàyyi kook borom këram ak njabootam bàyyi kook xelam bàyyi kook teraangam comme niñ leen koy ñaanale di sàkku ci yéen ñëpp soxna si ngeen ñaanal ko yal na ko yàlla taxawu yal na yàlla barkeel dundam yal na ko yàlla sàmm yàlla na ko yàlla aar yal na yàlla def lii mu dugal ci toolu yàlla bi fii misaani xasanaati yowma laa yanfau maalun wala banuun illa man ata allah bi qalbin salim assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu